te it boo ñëwee am na loo war a yokk ah, aéroport bu Kaolack nekk na fa ba pare yàgg na lool war nañ koo defaraat ba ku jógee Guinée mën a wàcc Kaolack ku jógee Guinée Bissau man faa wàcc ku jógee ko man faa wàcc ndax tey boo dëkkee Kaolack wala nga jëm Bissau wala nga jëm feneen jël avion ñëw ba jam ñaajo nga wàcce fi bëgg a delluwaat suñ amee lu ko gën a yomb moo ñu gënal kon ñuy ñaan loolu nga bàyyi ko xel siin nga yeen toujours fu ne ci àdduna bi dañ fay jógee di fa ñëw mais dakaar la ñuy fanaan bu ñu xëyee luye ay taxi dem fa amul hôtel amul sotodo amul marché te loolu yëpp dafa waroon a am tey konoon dafay gën a nekk yokkuteb senegal tey tourisme yi ñëw fii dañuy kontaan man daal monsieur le ministre lii may wax mooy bu siin ngayen bu Kaolack gannaaw bu ma gërëmee chef de l'État gërëm la gërëm président Moustapha Niass ndax kat Sénégal lu ne lañ fi jooy waaye du billet Air Sénégal nag foofu laay jeexalee gàcce ngaaraam ak ñoom parce que foo dem avion boo dugg seenu kàllaama réew la ñuy wax avion euh, Air Sénégal dinañ wax wolof wax angale wax français te dara du des avion bee gën a rafet gën a gaaw fu mu rang fees asalaamaaleykum wa rahmatullah